Fall laataa ñu koy présenter li nga xam nekk une vidéo pour présenter exactement euh, ses excuses aux militants de PASSEF. Ouais, mais c'est pas aux militants de PASSEF. Est-ce qu'il a même non, une, une, il a une carte de membre de PASSEF euh, euh, Ça, euh, d'après euh, Il y a des militants qui sont Internet. membre de PASSEF là pour tout le monde derrière PASSEF. Est-ce que j'ai posé une question très pertinente et claire D'après Maître Koreshiba. Voilà, d'après Maître Koreshiba donc on peut se fier il y a beaucoup de gens qui se victimisent dañuy jël un dañuy créer profil benn profil de photos photo Ousmane Sonko wala Ou wala déclarer ni que militant Pastef là. ba pare di ans à longueur de journée vous ont dit jàppee oui woy militant Pastef là. pour tilimal der Pastef alors que vous creusez dans le fin fond du problème on voit que le gars là il n'est pas un militant de Pastef parce que amul carte de membre de Pastef les instances de décision de, ce parti-là, il n'y est pas. Donc, voilà. là, il faut faire très attention. Les responsable mais militant avant, oui. pas mal de militants. Oui, Sénégalais, euh, Sénégalais, Moi, moi, Mon mec militant, comme je suis militant. Oui. Pour, pour que nous libérions un militant là, c'est normal, ça se fait. Hmm. Oui. mën nga saaga un magistrat ñu jàpp la en étant un membre de Benno Bokk Yaakaar ñu arrêté la nga xam ni problème bi xóotu na il faut nga gars yi xelal la wala sa avocat xelal la man naa wax entre euh, entre guillemets wala nit xelal la ne la. possibilité la voilà possibilité la. waaye ji ne la ah bro fii de man gisuma lu ma la lu lu la mën a génne ci problème bi xanaa kay benn affaire la da ngay déclarer ni ko yow militant wala sympathisant Pastef nga loolu kese moo la ciy génne am na ñoo am te ne ay saay-saay lañ mën nañ laa xelal loolu. ñu japp la ci ben infraction ñu ne la ben affaire dong nga def pour rectifier fii nga ne leen balla ne leen ne leen yow membre pastef nga comme wa pastef ñoo nek au pouvoir léegi wala ne leen man militant pastef la pour nga mën recc il y a des possibilités comme ça oui moi tax la ñu def très attention hmm. nous ñu def très attention <coughs> parce que le débat est tellement agité ñi ñi dañuy agité ay débat sans pourtant autant ñu comprendre euh, mais le fond du problème euh, mais euh, li nga peut-être mën doon dëgg parce que logique pour logique. ouais mais euh, comme ça dafa doon fustiger la manière dont on a arrêté Bah Diakhaté. voilà ba pare ñu japp ko. ba pare ñu mu déclarer mon militant Pastef nga. voilà en tant que militant Pastef en tant que militant Pastef voilà. li Bah Diakhaté di wax. voilà yow nga accepter lu Bah Diakhaté wax Ousmane Sonko ba ñu japp la ci lolu ñu japp la ba pare nga taxaw ne le man militant Pastef la motam tax la il faut faire très attention. Mm. man xamna bu baax li ma lay wax. Mm. ku ñu jappé ci outrage un un magistrat boo xamantene dafa juger ba Diakhaté ñu japp ko nga dem dem ba affaire bi ëpp la doole nga déclaré ma militant Pastef la militant Pastef dina accepter lu ba jaxate wa Ousmane Sonko soyons cohérents man fofu lay waxee. Mm. moo tax ma le débat est tellement agité mais nit ñi nañu andak dal ñu andak sen xel man gëw ma ni que euh, euh, le Fall la comment il s'appelle. Mm. ku ñu arrêté. Alassane Fall Alassane Fall man ma ni que c'est un militant de Pastef gëw ko même si avocat am wax na mais avocat am daf koy layaan pour mu am dëgg avocat mom day coopérer ak yoot son client avocat moo meuna déclarer ni que c'est un militant de passeur pour que ñu am clémence mom mais bo démé c'est pas un militant de Pastef ku fustiger un magistrat ci arrêtage arrêté bu ñu arrêté Badiakhaté yow nga dem bo affaire bi la doole nga ñëwaat pour né man militant Pastef la pour ñu mën baye pour ne serait-ce que ñu baye la nga ñibi mais du si dal yow wax nga li nga wax ba paré le magistrat mais ñu jàppale il faut assumer.

ci déférement la jëm ñu non man militant Pastef la parce que bu waxee lolu ñi ñi dañu ah comme militant Pastef la ça dit que il voulait mettre à mal ñom ci campagne de lañ nek il voulait mettre à mal militant Pastef yi entre ñom xam en tant que militant Pastef yi ñii dañuy analyser non war nañu à assam Fall comme ci ñun la bok, mm. ñi dañuy analyser non na yoon def liggéeyam parce que ñu ñoo wote jub jubal jubanti déjà waro amna entre les deux militants de PASTEF. Mm. mais Assane Fall loolu la bëgg. neen aussi waa PASTEF euh, entre nous nous xeex seen mais mais enfin il est un ancien détenu politique détenu politique la woon nee na. oui waaw mais loolu ay alibi la. mais bu nekk APR terminé la jàpp. <laughs> mais loolu la. enfin détenu politique la il faut faire très attention Fallou. Mm. parce que yii ñi dañuy am langage boo xamante ne. te léegi ku sax nga détenu politique voilà ku ñu jàpp nga ne détenu politique la wala activiste la moo tax ma ne leen très attention ci tournure boobu lañ nekk dañuy jàpp ben nit ci infraction mu ne non man activiste la bay len ma wala liberté d'expression wala man détenu politique la je suis le premier détenu politique que le régime de Diomaye a arrêté moo tax il faut faire très attention la nouvelle communication bo xamante ñi ñi mom la ñu ko moom la pratiquer les membres de Benno Bokk Yaakaar mom lañuy pratiquer trois pro trois choses soit ñu ne la man je suis un activiste wala mon la liberté d'expression wala mon ne la lanceur lanceur <laughs> lanceur d'alerte là. Voilà il a mon la man militant Pastef la pour rëcc alors que en sachant que mom il est de Benno Bokk il est de Benno Bokk Yaakaar moo tax na nit ñi ànd ak dal bàyyi yoon def liggéeyam yoon mo xam mo meuna mesurer la gravité des propos de Hassan Fall yoon moo mën mesurer la gravité des des propos de Assane Fall. Ah, bu fekkee ah. yoon dafa jàpp ne Assane Fall waxu fi lu jar top, topp dinañ ko relaxer. Hmm. mais bu que yoon moo ko arrêté pour outrage à un magistrat mu jàpp ni que les propos de Assane Fall nécessitent quand même à un mandat de dépôt voilà je ne sais pas quelque chose comme ça. ñu ne avocat am nañ tey lañ koy defee. mais dañ koy defeere dañ koy defeere hmm. est-ce que ñun kan la xam ni que Assane Fall c'est un militant de Pastef buñ bañ koy waaj a ci la ñuy def seen kii boobu moom ak avocat am. Hmm. ñu mën a déclaré que c'est un militant de passeur. mais keroog bu ñu ko arrêté bu ñu nekkoon ci les la procédure. Hmm. mais est-ce que ñoom déclaré nañu ko sénégalais xam nañu ko il y a euh, un militant de passeur qui a été arrêté. Hmm. mais xamuñu ko yëguñu ko woon. pourquoi ñoom ñu xaar ba tey ñu waaj ko defeere ñoom ñu taxaw nañu c'est un militant de passeur. il faut il faut que les gens arrêtent. ok c'est que avant alors euh, ñu daal di jàllaat euh, ba si kanam yoon ak wal yoonal avant ñu daal di yegsi si ki nga xamne que moo di depuis sa condamnation euh, la réaction réaction yi mi continuer exactement